ndax su waxtaan yu noppee dañoo war a dem ci cérémonie officielle bi moo tax ñu bañoon a jéggi waxtu moo tax ñu ne waxtu ñu nañ tàmbali saa bu sëñ Mbacke Fadal ñëwee euh, dab ñu kon sëñ Mbacke Fadal ñu ngi lay ziar bu baax di la ndokkeel dañ lay jox kàddu gi rek xam naa nga dugg ci thème bi sëñ euh, Abdoulaye Niang doon waxtaanee dolli ci rek ay ay ay yokk ay leeral su ko defee ñu ñëw ci tënk bi nga xamante ne moom la ñu bëgg a tënk def ko ci wolof ak ci français. kon sëñ Mbàkke Fadal bisimilah. alhamdulilah wa kafa wa salaamun ala ngi mbooloo mépp di leen ñaanal jàmm ak tawfeex di rafetlu jotaay bu baax a baax di sant sëñ Abdul ci waxtaan wi gàtt na waaye am na solo wax nag lu bari li amul jariñ li ci am njariñ rek mooy. li ca gën a tuuti te mën koo jariñoo loolu mooy li am jariñ kon yàlla nañ yàlla defal ak dégg ak topp thème bu am solo waxtaane ñu ko tànn it ñu xam tolluwaayu jamono lañ ndax loolu mu wax ci ndaw ñi mu nuru ay defi yu leen di dëkk yoo xam dafa taxaw seen kanam te xam nañ ni doomu aadama euh, dundam gi la ci gën a gànjoorlu gën caa riche mooy ak waxambaane waxambaane nag day tolluwaay boo xam ni bu fa nit xasee ba egsi ak dundam foofu la ko saytaane yi waaye foofu la ko yàlla di soxlaa comme ci jox boppam rek ka ca ñàkk moo tax ki nga ki ñuy gis mu wax day dox ak ndawam ba ak waxamaaneem jàll mun day wëlbati ko jox boppam yàlla na xam ne suñu borom soxlaatul loola euh, Iblis ba mu moyee ndigal ba ñu génne ko suñu borom xamal ko ni sawara nga jëm bi da ko ñaan ne ko dama nga bëgg nga may ma kàttan suñu borom may ko kàttan mu ne ko duma dem man dong mu ne ko nooy def mu ne ko sa jaam ñëpp ñi ci ëpp danaa leen bewloo yóbbu leen sawara la ughwiyannahum ajma'in loolu nag sëñ Tuubaa mi nga xam ni moom rek lañ yaakaar te te koy topp di xeeñtu aw yoonam mu doon yonent saa sallam saahir ak baatin lépp lu mat a wutal solution xamoon na défi yi nga xamante ne dana dëkki jamono fu jamono mën a toll rek ndax ku yor ku ku doon yonente bi sallallahu alayhi yor mbootam yor yor yor mbootam defi yi nga xam ni moo moom la si la wax te cité ci ñett rek te mën na koo ëpp lool sax yooya tudd ci ak réer réer moom mënees na koo jàppee euh, ndorteelu bépp musiba ndax nit ki su xasee réer dañ ak xam lenn lu mën a ñëw rekk ci mboolem xeetu jikko bu ñaaw mën naa dal ci kawam waaye saafara si xam ko nii rek amul njariñ moom li wax tudd na défi yi tudd na solution yi jële ko ci njàngaleem sëñ bi waaye jox la dépasse demal la marché nduggal la toggal la yakkal la ki def effort jàpp naa ne foofu la mën a yem maanaam ci bu seexal la nag nit ki moo koy defal boppam sëñ Tuubaa li mat a def lépp def na ko ñun ñoo war a xool su jafe-jafe amee ba noppi solution am nekk ci suñu kanam ba noppi jafe-jafe yi continuer di fi nekk mooy ko ñun jëfandikoo ñu solution yi mi ngi mel ni nit ku wéradi xam li koy faj ba noppi li koy faj am fii te wérut ñun loolu moo ñu dal loolu nag kenn ku nekk da nga ci am responsabilité ndax bu ñuy wax société bu yàqu loolu so nit bi nit ñi daje ci pénc mi ci ay kër lañ jóge kër yooyu ay way jura leen jur suñ boroom nag am na lu mu waxoon lu am solo yonente bi fegal lal sa njaboot sawara fegal ko sa bopp loolu na muy amee mooy nga yar leen jàngal leen digal leen tere leen ndax kat yonent bi saai nee na nit aw wayjur dana dem bay bëgg a dugg àjjana ba jël benn tànkam bay dugal nee na doom xëccaat ko sëñ Tuubaa wax na ni yamal xiyaam jàppante ndombay baat dana fa bari ndax wayjur wu wàccewut ak njabootam bu jëfee lu ko tax lu ko tax a dugg àjjana yit ci digganteem ak boroomam wàccewutuk ak njabootam ba ëllëgee njaboot googee mën nañ koo xëlset mën nañoo jël ci moom ay àq bu dugal ko sawara lu ci ëpp ci société bi bu ñuy wax da ngay dégg lu ñuy wax way jur yi àq yi nga xam ne doom dañ ko ameel wayjur waaye dana néew ñu tudd àq yi nga xam ne jur yi dañ ko yaral seeni doom te moonte it loolu dafa am dafa am souvent da ngay dégg rek ñu ne wayjur doj la doom nen la mais nag mbir mi mën naa wëlbatiku léeg-léeg loolu di ko waxtaane lu baax la xam naa li am solo rek mooy fii jamono toll nga xam ne ku ne sa kilifa bopp nga ba ci sax léeg-léeg nga dégg ci yenn ci way jur yi ñu ni njaboot gi njabootu kinaara la nañ leen jiital topp seen ginnaaw loolu àdduna bu tukki la ndax baaxawut a doxee noonu kon sëñ Tuubaa ay jamonoom daa yàggut te dafa am yar ay nit bind ay téere jëf ñu gis kon suñ bëggee li yàqu saafarawu dañuy commencé ci suñ bopp ñun ci suñ bopp yow soo beeroo ci sam néeg xalaat lan man ban problème laa am par rapport ak li sëñ Tuubaa jàngale ak fi jamono toll man naa njëkk a jéem a defaru mais ñun jafe-jafe bi ñuy am mooy dañuy wax ni ku feebar mënta faj maanaam mënoo wéradi di faj ku wéradi ki mën a faj mooy ku wér ba noppi xam jàngoro ba yoppi yor saafara loolu ki ko def mooy sëñ Tuubaa waaye moom wàccoona ak ñun kon ñun ñu des ñun taalibe yi li war mooy fii jamono toll te sëñ Abdoulaye wax ko léegi bépp défi bi mu mën a bu mu mën a doon mu man jamono indi ko mënees na koo saafara bu ñu sukkandikoo ci njàngale njàngaleem sëñ Tuubaa mais sukkandiku gi mooy ñu appliquer ko léegi problème bi nekkatut ci xam jafe-jafe ak xam solution loolu amut ay téeméeri téeméeri téeméeri waxtaan am na ci problème bi man damaa jàpp di fi mu nekk mooy léegi nan la ñuy def ba jëfandikoo solution yooyu. maanaam kan moo amee responsabilité pour jafe-jafe yi am te dal ndaw ñi mu mu dañ loolu soo ko tuddee dañu ci tudd état dañ ci tudd kilifay diine yi nga xam ni ñoo boot tariixa yi dañ leen tudd état rôlam walla na koo def ndax bépp mbon guy tasaaroo te moom mu am ci paar te saafaraw ko bu boobaa xanaa xamu leen ni su su ak mbon demee ba tasaaroo ci kaw suuf ñëppay am bàkkaar Abdul Ahad day am damay am dangay am keneen day am ndax képp ku war a wax te waxoo te mën a saafara yén saai salaam daani woon ku gis lu bon na ko saafara ñu ne ko ci nan mu ni su ko mënee dindi ci làmmiñam mu dindi ko su ko mënee dindi ci force mu dindi ko su ko mënta mënta dindi ci loolu mu mettit lu ko li gën a néew mu daraja bi gën a suufe mooy mu metti ko ci xolam kon nag jàpp naa ne kenn mënta mucc kon beru ci sa ruq yor sa daara di jàngale wala nga nekk uh, di def la ngay def te fekk ne yaa ngi gis aw ñaawteef te waxoo ci wala saafara woo ko ci sa kem kàttan na nga xam ne boo ëllëgee bàkkaar bi ñëpp lay dal te suñ boroom am mbugal nag sun sun sun boroom yonente bi yàlla dimbalee na ko ndax nañ nañ bàyyi xel ne bépp ñaawteef wu wu nit yu njëkk ya da maa nation yu njëkk ya bépp ñaawteef bu ñu daan def ba yàlla di leen alak di leen faagaa matale am mbugal nañ xam ni jamono ji ñu ngi koy def yàlla da ko suturaale maanaam yàlla dafa suturaale yonent bi ak ñaan goo xam da koo ñaanoon dane ko yàlla sama xeet wi luñ mën a def ci lu bon maa ngi lay ñaan bu bu leen faagaagal ci ak mbugal ba noppi nag daal di koy wax ne ko bépp yonent bu mas a doon yàlla dane ko ñaanal ak ñaan ma may la ko yonent bu ne daal di njëkk njëkkante daal di ñaan ak ñaanam mu ne ko yow Muhammad ñaanal su yonent bi ne ko man du ma ñaan mu ne ko lu tax doo ñaan mu ne ko sama ñaan gi ma war a ñaan denc naa ko bu ëllëgee li sama xeet wi naroon a def te nga nar leen ko mbugale ma ñaan ko nga ràmmoo leen ko sallallahu alayhi wa kon kooku moom la sëñ tubaa donn moom lañu indil ngir mu nekk solution sëñ tubaa solution bu àdduna bi la comme ni ngeen koy waxee kon yàlla nañ ko yàlla fayal yàlla nañu yàlla jàppale ba nga xam ne liggéey bi ñu liggéeyal sëñ tubaa yàlla defal leen ci lu kawe njort te xam ne ñaar dongo ci am mooy am njariñul àdduna ak njariñal ilaaxara te mu ngi ci liggéeyal sëñ tubaa te gis nañ taxawaay yi ngeen ciy def njariñal àdduna ji mooy waqdi xawaaij allazina daamu fi xidmati wa hablahum waaraamu njariñal ëllëg li mooy inna alladina saarao fi xidmati fa lahum diyaaru wastal jannati ñi profitoo di ma liggéeyal man sëñ Tuubaa ba ëllëgee seen kër yaa ngi ci digg àjjana di leen xaar yàlla nañ ci yàlla boole in uridu illa al-islaaha ma wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf jërëjëf jërëjëf bisimilah kon jërëjëf sëñ Mbacke Fadal wax dëgg si yàlla waxtaan wi tënku na euh, xam naa may liñ ko mayoon ci ay simili bariwul waaye jot na cee wax lu am solo li nga xamante ne dolliwaat na waxtaan bi nga xam ne sëñ Abdoulaye Niang mu ngi ko doon def kon euh, ñu def ab tënk rek ci li nga xamante ne moo fi jot ruus ci waxtaan wi may fàttali nekkoon ki njëkk a jël kàddu mooy sëñ Abdoulaye Niang Euh, may joyan ci li ma waxoon ci tàmbule bi rek di doomi sëñ Modou Niang jullit euh, moom mu defal ñu waxtaan ci jafe-jafe yi nga xam ne ci jamono jii ndaw yi ñu ngi koy jànkuwanteel waaye tamit naka lañu mën a jële saafara ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa ci loolu ah, biñ ko defee kon mu wax ne waxtaan wi ñëw na ci waxtoom ndax xam-xam lu mu bari bari waxtaan lu mu am am solo bu fekkee la ngay wax dëppoowul ak soxlas jamono ak soxlas ñi nga xam ne ñoo lay déglu amaana mën na bañ a am njariñ waaye nee na kon waxtaan wi xam-xam bu am njariñ la ndax jamono moo ko laaj mu ne nag jafe-jafe yi bari na waaye ñett la ciy génne ñetti jafe-jafe jafe-jafe yi mu génne itam benn bu ci ne mu wut ci benn saafara boo xam ne mënees na koo jële ci njàngalem Serigne Touba jafe-jafe bi ci njëkk moo di ak réer nee na jamono bi ñu toll ak réer yaatu na lool te réer googu dafa am ñett yoo xam ne moom lay jur dana jur ak tooñ dana jur ak féttéerlu dana jur tenk sa bopp ci jàpp ne yaa gën a kawe nit ñi te loolu lépp ay jikkoloo yoo xamante ne bokkut ak jikkoy yu rafet ci jullit su ko defee it la nga xamante ne mooy saafara ngir denc ak réer te sëñ tubaa indi ko ci njàngaleem moo di ñaax na ndaw ñi ci ñu gaaw daw uuti xam-xam sàkku ji xam-xam waaye tamit doon ñu ragal yàlla nee na sàkku xam-xam ak ragal yàlla mooy tax nit ki denc ak réer te sëriñ bi ci wàllu xam-xam ku ne xam na ne laata muy ñëw boo soxlawaan xam-xam di nga dox ay kilomètres yu bari dem fu sori te fa ngay wuti xam-xam boo fa demee di nga fa yàgg lool jóg fa jële dara waaye sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee bari waane lu ñu daan wuti gànnaar boo toogee ci keppaaru njaareem mu rek keppaaru Touba gii da nga fa jàng bu am sax niveau universitaire te doo génn dëkk bi kon lépp lu ñuy war a jariñoo ci xam-xam sëñ bi indil nañu ko kon na ndaw ñi buur sàkku ji xam-xam waaye ginnaaw bu ñu amee xam-xam itam nañu ragal yàlla ndax ragal yàlla mooy tax nga bañ a tooñ mooy taxit nga bañ a fayu ndax kuy tooñ du mucc te kuy fayu fayu du du noppalu ñaareelu jafe-jafe ji bi tamit moo di nee na ñàkk a liggéey banque say loxo ñàkk liggéey nee na jafe-jafe bu mag la ci jamono ji nee na te loolu ah, day tax li muy indi ñett mu indi mooy ñàkk kaaraange leneen li nga xamante ni tamit moom moom lay indi moo di bari po ak ay caaxaan leneen li nga xamante yi tamit ah, dana ko indi mooy nga mel niw xob bu lu jóg mën laa fab bi yóbbu la kon ñett yi toog ñàkk liggéey dana ko indi kon la cay saafara mooy sëriñ bi li mu wax mooy yéen ndaw ñi ga da di farlu ci sàkku liggéey sàkku liggéey nag nee na boo koy def liggéey boo gis tamuy lu dagan bu ko xeeb jàpp ca ba yàlla di indi leneen waaye loo gis xeeb ko dana tax amaana nga toog di séentu doo te doo gis la ngay xaar euh, loolu yi tamit ginnaaw boo sàkku liggéey bu am ko la nga cay jële di ca yaxantu nee na na nga fexe ba mu doon lu lew na doon lu lew nga jëriñoo ko ci lu lew mu indil ñu li nga xam ne dagan na te lew li dagan te lewul li nga xamante ne ah lewul te dagan ak li nga xam ne lew na te dagan loolu yëpp kon sëñ bi indil nañu ko ngir leeral ñu jëfandikoo lu lew ni mu baaxe ci ab jullit te ndaw ñi tam war cee góor eh, góorgóorlu tënk ci seen bopp ñetteelu jafe-jafe bi nga xamante ne moom la indi mooy ñàkk dal dañoo ne ci jamono joo xamante ne nit ñi dañoo ñàkk a dal ñàkk a dal gi nag nee na la muy indi mooy ñàkk am mbañum rus soo dalul doo am mbañum rus waaye nee na boo dalul dalul tamit dangay ñàkk war ma doo am war ma ci sa bopp doo am war ma ci bindee fii waaye nee na yi tamit soo ñàkkee dal day tax ba doo mën a faggu sërica bi nga xam ne moom ngay yóbbaale ëllëg yomal xiyaam ngir mën faa yaakaar yërmande suñu borom loolu nag ngir mucc ci sëñ Tuubaa joxe na ay ndénkaane yu yaatu yoo xamante ne wax na ko euh, jullit ñi rawatina ndaw ñi mu nekkoon na ngeen di moytoo xëccoo xëccoo na ngeen ko moytu euh, nee na yi tamit na ngeen fonkante kenn ku ne ni nga fonke sa bopp nga fonke ni sa sa moroom waaye nee na itam na ngeen yéenante jàmm loo yéene sa bopp ci jàmm yéene ko sa moroom nee na loolu ay ndenkaane la yoo xamante ne sëñ Tuubaa def na ko rawatina ci ndaw ñi te bu ñu ko fànnoo dana tax ba li nga xam ne moo di ñàkk ñàkka dal dana denc jamono denc nit ñi te su boobaa dana tax ba ñu mën a amuk dal ci jaamu yàlla amuk dal ci sàkku aw yiw waaye amul dal itam ci mën a liggéey lu tax ñu jaamu ñu am lu ñu mën a yóbbaale ëllëg ca sunu borom kon loolu mooy ñetti jafe-jafe yi nga xam ne sëñ Abdou Lahad Niang génne na ko ak ñetti saafara yi nga xam ne gis na ne mu des na koo génne ci njàngaleem sëñ Touba ginnaaw loolu tam sëñ mbàkkee Faadal moom dikk na ci waxtaan wi waaye moom itam dikke fu am solo ndax moom dafa wone ne jafe-jafe yi bëri na lool waaye li koy indi li ci ëpp nee na lan moo ko waral nee na ñi ñuy waxal di ndaw ñi maanaam waxambaane da waxtu la boo xamante ne bu ci nit ki tolloo fa la ko fa lañ ko gën a fa la gën a soxla boppam ci jaamu yàlla ndax jamono joo xamante ne ndax sëñ Ablaat ne woon na doomu aadama bu dikkee jamono dana toog ab diir du mënal boppam dara su fi toogee tamit ba yàgg fi dana am jamono joo xam ne dootul mënal boppam dara diggante bi nga xam ne ci lay mënal boppam dara nag diggante su gàtt la boo xam ne waxuma mooy waaye caaxaan xaju da daf ne euh, mooy yàlla moom taxul ñuy wax ndax yàlla sàkkul dara ngir foog diggante boobu nag nee na bu ci ndaw li tolloo dafa am ñaar koy xëcc yàlla mi ko digal ne ko jaamu ma mu war a wuti buur buur wutali yàlla waaye seytaane taxaw temb nag ci fàbbi ko ndax seytaane da koo soxla lool nee na kon nag loolu ndaw ñi dañ cee war a bàyyi xel ndax euh, seytaane nan la mën a def rek ba gàllankoor jaamu yàlla yi ba du ñu nekk ci siraatal mustaqim wala buñ ci nekkee duñ doon ñu sant yàlla te ku santul yàlla weddi nga ko kon nee na loolu ñu bàyyi ko xel waaye nee na tamit sëñ tubaa moom liggéeyal na yàlla lu tax seytaane moomu mu nee na ko deqat ren ba gàllankoor ga seytaane mënoon a am ci ci ab jaam boo tënkoo ci sëñ ak akum njàngaleem ak di ko liggéeyal mën ngaa mucc ci loolu ndax nee na ku tawat mën ta faje te sëñ Tuubaa moom daa mucc ci seytaane mucc ci gàllankoor yépp ba tax mu mën woo ci boppam faj nu ni nga xamante ne ab seexul ab ab seexu tarbiya dana jël do jaam bi tarbiya ko ba saafara li nga xamante ne moo ne ci moom ay gàllankoor ni ki médecin bi ni lay faje ab malade boo xamante ne moom la feebar ah, loolu itam kon dellusiwaat na ci itam indi responsabilité masuliya bi nga xam ne ndaw ñi am nañ ko ci société bi ndax bu ñu yàqoo société bi yàqu ci biir loolu tam mu ne kon waajur yi am nañ ci tamit warteef warteef bi nag mooy yar ndaw ñi jàngal leen waaye itam tënk leen ci digal leen lu baax ak ter lu bon te nee na loolu ñàkkuñu fuñ ko amee ndax njàngaleem sëñ Tuubaa fees na ci dell waaye tam mu dikkaat ci ñeneen ñi nga xam ne am nañ ci responsabilité rawatina nguur gi di état bi waaye tam nitu diine yi waaye itam société bi askan wi ci boppam waaye nag nee na bu nu tënkoo ci jàngaleem sëñ Tuubaa takkook njàngaleem sëñ Tuubaa sax ci di ko liggéeyal nee na danañu am njëriñul tey ak njëriñul àllaaxira loolu mooy li nga xamante ne kon moom la tëgg ci thème bi kon ci gàttal ci wolof lii mooy li nga xamante ne moom la ñu indil kon ngeen baal ma ma dikk rek tënk ko ci wàllu kàllaamay français ndax dañ ko def en direct te ñu bëri ñu ngi koy topp te ñi koy topp am na ci ñoo xam ne dégguñu wolof donc tout à l'heure nous avons de suivre un thème qui a été par deux éminents Euh, panéliste, euh, Sering Abdullahad Nyang, euh, qui est un, un enseignant, chercheur et écrivain, mais également qui est le directeur de l'Institut Massalikul Jinan de Touba. Euh, il nous a traité le thème relatif à, au, au, défi, la jeunesse face aux défis du monde contemporain la réponse à travers les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Et dans cette thématique, Serigne Abdullah Nyang nous a montré que c'est un thème qui vient à l'heure. C'est un thème d'actualité et un thème qui intéresse tout le monde. Il a dit qu'il y a beaucoup de défis qui interpellent les jeunes dans ce monde contemporain, contemporain notamment les jeunes musulmans. À défaut de listé tous ces défis, il en a choisi trois. Et pour chaque défi, il a montré que nous trouvons la solution dans les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Le premier défi, c'est l'ignorance. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde frappé d'ignorance. Et l'ignorance entraîne trois mots. Celui qui est ignorant est, un transgresseur. Celui qui, est ignorant persévère dans l'erreur. Et celui qui est ignorant également est orgueilleux. Et tous ces trois sont des comportements néfastes pour un musulman. Et pour réparer cela, il a dit que nous pouvons trouver dans les enseignements de Cheikh Ahmed Bamba une solution. C'est que le Cheikh nous insiste à l'acquisition du savoir, à son application, mais également à la crainte révérentielle de Dieu. Quand on a le savoir, avec une crainte révérentielle, on peut se départir de l'ignorance et en ce moment, on pourra être dans la sécurité et dans la quiétude. Le deuxième défi qu'il a relevé, c'est l'oisiveté. Nous sommes dans un monde où les gens sont de plus en plus oisifs, qui sont là, qui attendent, qui ne font rien, ou bien qui attendent qu'on leur propose quelque chose. Et il a dit cela l'insécurité, mais cela également entraîne le divertissement et les, les errements, mais cela également entraîne la déviation. Celui qui est dans l'oisivité est facile à dévier. Et pour sortir de l'ignorance, on trouve des solutions dans les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Et cette solution, c'est quoi Chercher du travail mais un travail licite. Il ne faut pas courir vers l'illicite, mais il faut chercher ce qui est licite, ce qui est permis. Car euh, tout ce qui se présente devant nous, peut-être quelque chose dont on a besoin, ou bien dont l'âme charnelle a besoin, mais il faut faire la part des choses. Qu'est-ce qui est licite, qu'est-ce qui est illicite, et l'islam nous a fait la part des choses et Serigne Touba a toujours recommandé aux musulmans, aux disciples de d'user ce qui est licite. C'est pas tout ce qui est devant nous qui est licite, qui est permis. Et Serigne Abdoulaye Niang nous a dit que lorsque maintenant on cherche du travail et qu'on a acquiert du travail dans ce qui est licite et qu'on gagne quelque chose, il faut éviter de thésauriser parce que la thésaurisation de l'argent euh, corrompent le cœur, mais ce qu'on a gagné licitement aussi, il faut l'investir dans ce qui dans ce qui est permis. La troisième difficulté, c'est la culture de la violence qui gangrène ce monde. Et la culture de la violence aujourd'hui entraîne un manque de pudeur de par les jeunes, mais également un manque de respect mutuel, mais également il nous empêche de chercher la provision dont nous avons besoin pour aller au-delà et espérer la miséricorde divine. Et pour cela, il nous dit que dans les enseignements de Seigne Touba, il y a des solutions, car le Cheikh nous invite à éviter les disputes entre frères musulmans surtout. Avoir un amour mutuel entre frères musulmans, mais également souhaiter le bien et tout ce qui est bon à l'autre comme on le souhaiterait à soi-même. Serigne l'a beaucoup développé dans ses écrits. L'amour du prochain, le respect du prochain, le souhait du bien et du bonheur pour le prochain. Et je pense que même le Cheikh nous invite à être généreux et à faire preuve d'altruisme et de bienfaisance. Voilà donc les points que Serigne Abdullah Nyang a développés par rapport à ce thème. Après lui, Serigne Mbake Fadal, que nous remercions parce que en quelques minutes, il est aussi entré dans cette thématique, mais sous un angle différent parce que lui, il a voulu montrer que toutes ces difficultés, très nombreuses, qu'on ne peut même pas citer, sont liées à un phénomène lié à la posture même de l'adolescent, du jeune. L'adolescent est à fleur de l'âge et dans la fleur, dans la fleur de l'âge, nous sommes à un moment, le jeune est à un moment où on a besoin de ce temps, de, son, de sa vigueur pour l'adoration de Dieu. Et en ce moment-là, Satan a besoin de lui pour le dévier. Parce que Satan ne voudrait pas que les, les, les, les humains soient sur la voie droite. Et même s'ils sont dans la voie droite, il veut les dévier pour qu'ils ne soient pas reconnaissants à Dieu. Et ainsi donc, il dit que le jeune doit être conscient de cette situation entre Isbu Shaitan et Isbullah, la faction de Dieu et la faction de Satan. Et il demande aux jeunes de migrer vers la faction de Dieu. Et pour cela, il faut s'inspirer des enseignements de Sintouba qui lui a dompté Satan. Satan ne, ri, ne peut rien contre Sintouba ni contre sa communauté. Donc si on s'inspire des enseignements de Sintouba, on peut migrer vers l'adoration de, son, de, de notre Seigneur, espérer de donc avoir des bienfaits et des grâces divines nous permettant demain d'espérer sa miséricorde. Et pour cela, il dit que les parents ont un rôle important à jouer. Il faut éduquer les enfants, les jeunes. Il faut les instruire, mais il faut les mettre dans la voie, leur recommander la voie divine, celle d'exécuter les recommandations de Dieu et de fuir les interdits. Mais également, il a interpellé les autres acteurs tels que l'État, les chefs religieux et la communauté elle-même car tout cela ont un rôle à jouer par rapport à l'éducation des jeunes, par rapport à leur orientation. Voilà donc en résumé ce que les deux panélistes ont dit par rapport à cette thématique qui est donc euh, la jeunesse euh, face aux défis du monde contemporain les solutions à, euh, qu'on doit trouver, la réponse à travers les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà donc, Sering Ibrahim, résumé ce que les panélistes nous ont présenté en attendant les autres interventions. En tout cas, comme l'on dit hier, Sering Touba n'a repris d'un mot en français, qui est merci. Merci. Abdou Fadel, merci. Euh, Moussa, encore merci beaucoup. Voilà. Donc, euh, kon quand ngi ñëw si c'est le panel. Donc, nous euh, xam ne li ñu est bariwul, te dañ ne day am intervenant ci question réponse te bu mu génn thématique bi ñu war si jël ñett waaye deux minutes la ñuy joxe nga mën a wax loo xam ne génnul thème bi nga xam ne moom la sëñ Abdoulaye Niang développé jëmale ko ci li ngeen doon déglu kon ñu jël ñetti intervenant rek si wàllu boobu bu fekkee ni kuy poser question la mën na ñëw poser ko bu fekkee ni kuy contribuer la aussi mu ñëw def suggestion mais si deux minutes rek lañ koy la ñu maye ndax temps bi xoj nañu te dañu war a dem waajali julli bi kon kan moo jóg fii nii kan moo soxla woon intervenir une question yow acca boobu c'est comment le nom Mohamed Diagne voilà asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di sant di leen gërëm eh, di rafetlu panel bi mais aussi eh, ak thème bi nga xamante ni choisir nañ ko ba jox ko boroom xam-xam yi ñu wax ci lu am solo ndax dafa nekk eh, thème d'actualité waaye effectivement comme ñoom ñaar ñëpp ni ñu posé thème bi apporter les solutions man damay jéem rek euh, euh, sof ci dara lu ndaw ndax nag Sëriñ Tuubaa moom dafa comme li waa ji wax dafa donnu ki matal ki yàlla matalal muy Muhammad sallallahu alayhi wa te ñu nekk ci weeru juddam fi mu toll nii Sëriñ tubaa donn ko donk koo donn nag dangay ngay donn ay mayam waaye boo tàmbalee ci fa mu tàmbalee muy rabbi rabbi asxaabika himma loolu rekk defe naa ni def na tem bi ndax yitte moom moo samp yoon wi te yitte dafa war a nekk ci nit ku nekk ci ñun ci wayjur wi ci njaboot gi ci état bi ci kilifa diine yi nga xam ni ñoo ñu tënk ñu di leen déglu mu yitte ndax yitte moom moom moo moo tënk àdduna en quelque sorte ndax boo ko fay tekki ci làkk bu mu mënta nekk di nga ko tekkee tekkee tekkee ba dootoo xam sax noo koy waxee waaye nag yitte bu ko jur defee ci njabootam yàlla mën na ko dimbali ci li mu mënul li mu mënul mooy jamono ji dafa bari fi mu ne nii ay ay tentation yu am maanaam ñag yi dañ leen di ruur fi mu ne nii lu baree bari jaarale ko ci téléphone naam way jur yu baree ngi def yitte di yar seeni doom waaye ah, waaye ah, ah, téléphone bi day ñëw di ko yàq waaye daal li ma bëggoon lu wax rek mooy nañu góor góorlu ci yitte yi bu ñu góorloo ci yitte rek incha allahu rabbi problème yi ñuy traverse yépp ci gone yi ak ci mag mi dana saafaroo incha allah jërëjëf jërëjëf. jërëjëf donc euh, loolu contribution la woon. Euh, sama sëriñ bisimilah donc deux minutes ah voilà question la wala contribution la da ngay waaye deux minutes la ah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, alhamdulilah jërëjëf sunu conférence bi wax dëgg yàlla am mel na ni wax ji. dafa mat sëkk ci solution bi nga xam ni indil nga ñu ko muy darsa boo xam ni warul nekk darsa boo xam ne rek bu ñuy déggale nii rek dem mu jeex dafa nekk darsa boo xam ne chaque jour dañ ko war di nafar parce que solution la ñu ñànk ak ñi ñàkk xam yan repère la ñu war a am waaye indil nga ñu référence bi te référence bi vraiment daf ko mat sëkk parce que yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla bi mu ko yónnee daf ko wax ne wa ma arsalnaka illa kaafatan linnaas wa ma arsalnaaka ilaa rahmatan lil aalamiina kon mel na ne ñaari solution am na léegi nag ku ko ku ko defar si dox dundu ko moo jafe woon a gis ñu gis ne Cheikhul Khadim def koo dundu mu baax jëf ko matale ko ba nit ñi war cee mën a roy kon royukaay boobu nga xam ne moom lañ war a moom lañ am moom référence bi mu ñu jox joxoon ñu ko war koo roy ci qualité yi jikko yi yàqu-yàqu yi bari na yaakaar naa sunu kilifa gi wax na ko ci ñàkk liggéey ci ñàkk roy lu baax kenn ku ci nekk jàpp ne sa yoon nekkul ci affaire bi te sa sa yoon mi ngi ci affaire bi parce que boo seetaanee loo xam ne lu ñaaw la yow da nga ci am bakkaar parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa digle ñuy wax alquran yi wax ne quulu li naasi xusnan kon mel na ne loolu force la ñuy wax lu rafet force la ñuy jëf lu rafet parce que wax lu rafet ak jëf lu rafet ñoo ànd kon mel na ni vraiment temps bi waroon naa gën a yaatu journée bépp waroon naa nekk wax ji parce que wax ji dëgg-dëgg daf ma porté li may dugg si rek tuuti laa yem sa wax waaye daf ma daf ma daf ma laal vraiment daf ma laal trop Cheikh Ahmadou Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér kilifa yi ni ko sunu deuxième conférence bi waxee tamit vraiment am na solo ñëpp nañ xam ne daal sunu mbir la moo xamante ni dañoo war di waxtaan ndax addina nasiha nasiha bi nag mooy lii rek mooy laayante biir yaatalante lépp gën a rafet kenn ku nekk li mu bëggal moroomam mu bëggal ko boppam bañal ko li mu bañal boppam mu bañal ko moroomam li mu bëggal boppam mu bëggal ko moroomam xam ne loolu mooy ak njulit loolu mooy lislaam vraiment kontaan nañu baax yàlla na yàlla def jàmm yàlla bu nekk suñu mujjug teew Cheikh Mamadou Muntaxa yàlla na fi yàgg te ànd ak wér leen jëf yéen ñi nga xam yéen a def xalaat bu rafet bi ànd koog mbokk yi ba pare andi ñu ko matale bañ mën cee jariñu yàlla leen yàlla fay ngeen di fay jazakumullah xaran salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa baraka seen mbokk seen xarit Serigne Modou Diagne waxtaan ko Cheikhul Khadim jërëjëf sëñ Modou Diagne donc le troisième intervenant aca

dañ ne ay ay chômeur lañ exemple ndax ñu ci bëri dañ cee bëgg a boole dañ dañ leen ci boole waaye buñ ne chômeur mooy ki nga xamante ne jàng na métier mbaa jàng na xam-xam te amagul liggéey waaye ñu ci bëri ci Sénégal dañoo gis ne jamono ji amuñu métier jànguñu xam-xam kon ñuy xool di la di poser question di laajte ñaari xeetu ndaw yooyu nekk Sénégal lan mooy solution ak ku ci nekk fan nga war a mën a tàmbaleek moom pour mën a jëriñ ko mu dem ba mën a jëriñ maanaam dañ ne ci wàllu euh, chômeur dafa am ñaari xeet xeetu ndaw yu nekk fii Sénégal buñ ne chômeur mooy ki nga xamante ne dafa am maanaam daa xam-xam am métier ba pare te amagul liggéey beneen xeetu ndaw bi mooy ki nga xamante ne maanaam amul xam-xam jàngagul métier kon ñaari xeetu ndaw yooyu noonu ku bëggoon jëriñ ndaw moomu noonu ba muy jëriñ société am fan nga war a mën a tàmbaleek moom ak lan moo ko war a mën a jëriñ waaw ñu ngi jégalu bu baax. léegi bàyyi ñu jël question bi Cheikh comme ça mu nekk benn tontu rek waa temps bi daf ñu got Cheikh Kaay ñëwal nga euh, def question xaaral xaaral sëñ bi ñëw moom bu njëkkoon yëkkati loxoom après nga jël ah. waaw dañuy dem si cérémonie bi te li xaj si kii bi xajul fii. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ñi ngi santaat Serigne Touba bu baax a baax di waxati jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool te wér ci barkeb Serigne Touba di rafetlu jataay bi bu baax a baax euh, mu mel ne boo xoolee lii Serigne Abdoul Ahad doon waxtaane euh, dama defe ne day jafe-jafe boo xam ne dafa mat di yaatal ci jataay yi muy ndaw ñi euh, lan moo leen mel na lu leen sànq ndax man li ma ko jàppe mooy ak sànkute ci biir ndaw ñi damay wax ne ndaw ñi boo dee xool li Serigne Mountakha euh, yàlla nag suñu borom dolli fee yàggal waxoon ne boo dee si la ngay defee ndaw ñi ak jigéen ñi ñoo gën a bëgg Serigne Touba mu mel na ndaw ñi riir nañu wuti Serigne Touba waaye man ni ma ko jàngate li waral jafe-jafe bi dafa mel ndaw ñoo ngi dañ leen a dogale ñi leen dogale nag dañ leen a wan leneen te wanuñu leen Serigne bi boo gisee Serigne bi wax na ko léegi ci réer gi am lan moo tax léegi école yi gën a bari daara yi gën a bari université yi gën a bari ba pare ñu ne ak réer dafa continuer di am kon ndax jafe-jafe amul ci nit ñi leen jàngale ak bi ñu leen jàngalee pare nan lañ leen tàggate ak nan lañ leen yare mu xool mu mel ne li Cheikh Ahmadou Bamba waxoon radiyallahu taala anhu ki ñëwoon ci moom ne ko damaa bëgg nga defar ma mu ne ko defar takkoo te amatuma jot gu ma takkoo kenn kon da nga dem seet sëñ Balla Faale defar naa ko waaye kon léegi ndax léegi ñii ñuy wooye ay référence di leen wooye ay kilifa di leen wooye ay sëriñ léegi ñu dem ba mel na ñoom ñoo dominé yoon wi nga xam ne boo dee xoos day mel na ñoom ñoom la seen maam sosoon yoon wi ñoo jiite mbooloo yi xëcc gon yi wammat leen te wax ñu lu ñu leen dëgg dañu leen war a wax wax ñu leen dëgg dëgg Serigne Touba jàngaluñu leen Serigne Touba jàngaluñu leen lislaam buñ toogee ak ñoom sax duñu leen soññi ci jaamu yàlla est-ce que du jafe-jafe boobu mooy li dugg ba mel dafa jeex yitte jeex te Serigne Touba waxoon ne euh, sunu borom bi may dénk ñoo dafa wax rabbi asaabak bil jooju ndax du léegi dañ leen a gàllankoor bën di jafe-jafe boobu man daal loolu moo doon sama contribution mel lu mat a waxtaane ci jataay bare bare wasalaamaaleykum taala wa barakaatu. jërëjëf jërëjëf sëñ Cheikh jërëjëf Cheikh sëñ Cheikh Lo maa ngi tudd benn rek. asalaamaaleykum wa rahmatulah ndongali sëñ Abdou Khader Mbaye mooy euh, tuubaat bu baax di rafetlu kàddu yi fi jot a jaar di ziar ñaari kilifa yi yëpp macha allah sëñ Abdoulaye ñu ngi leen di bëggee lu bari bari macha allah. waaye man fi ma jubloo leerlu rek mooy ngeen dimbali ma ci muy question bi muy posé mooy ndaw loo xam ne dafa am xam-xam ba pare moo xam xam-xam mu faj walla xam-xamu liggéey rek léegi ba pare nekk ci dëkk bi liggéeyul man kooku lan lan mooy solution man loolu laay laaj maanaam ci biir Sénégal te bëri naa ci ay morom ñu baree bari ñoo xam ne dañuy am xam-xam lool macha allah waaye pour lu ñu mën a def ba exploiter li nekk ci ñoom problème moom lay doon léegi nag damay laaj ndax su boobaa. dem ci beneen réew maanaam loolu day nekk xaru wala dugg ci gaali wala nangam man daal loolu laa bëgg daal ñu ñu indi ci ay leeral. asalaamaaleykum wa rahmatullah xam naa nag euh, ñiy posé ay question moom xam naa dañ ma bëgg a dugal waaye xanaa ma wax li ma xam rek euh, jërëjëf sëñ bi ci sa laaj bu njëkk bi nga wax ne. da am ñaar ñoo xam ne yow ci sa gëstu bopp lim la jox da ngay jàpp ne ñaar bu ñu koy wax ci ñàkk liggéey ñoo fi nekk ku jàng ba ne ar xam la war a xam te amul liggéey ak ki ko ñaare mooy ku jëngul xamul xamul dara maanaam jàngul dal ba noppi ne ñàkk liggéey ñaari ñoo fi nekk nga bëgg ci solution ci ñoom ñaar mën naa ko booleeg laajub sëñ bi muy benn benn benn lañ euh, lenn li danay dellu ci ñoom ci seen bopp ñoom ñu ñuy jàng ba noppi lenn yenn jafe-jafe ci ñoom lay delluwaat ndax ñaare bu fekkee ne lépp danga nga koo gàll état ne moo ma ko war a defal léeg-léeg nga am jafe-jafe nag ci liggéey dëgg la état moo war a satisfaire bëgg-bëgg yi nga xam ne moom la képp ku nekk biir société bi dund état état moom la war ndax moom bokk na ci warteefam mooy gérer société bi ak jàppale leen ci seen i jafe-jafe waaye état nag mën na mënut a def lépp moom bu kenn jàpp ne na damay défendre état waaye damay joxe sama xalaat rek comme dañ maa laaj kon état mun a def lépp léegi du ma wax ñëpp waaye am na ñoo xam ne benn niveau bi ci xam-xam buñ ko amee dañuy xeeb yenn liggéey loolu it jafe-jafe dëgg la nag met metti na loole nit jàng ba am diplôme ci benn domaine ba nag bàyyi ko fi di liggéey leneen loolu it jafe-jafe bari na ñoo xam ne. nga romb nit koo xam ma ngay maçon ma ngay def nangam te fekk domaine boo ko laajee mi ngi ki lijaaseem waaye kooku man pour man duma ko yedd ndax kiris bu amee bunt bu ne ngay ngay ngay fëgg pour génn ci kon nit ki aju ci boppam ngir ne faw ba may am méej damay am ci ci barab boo xam ne ni ñàkk liggéey jafe-jafe la nga ne li ma jàng faw moom lay am am liggéey doo ca xëy léeg-léeg mën naa andi jafe-jafe kon ma jàpp ne war nga mën a sabablu war ngaa naa sabab sabab li mooy lan lépp loo gis ne góor góor yàlla nga xam nga góor yàlla dañu wax ne daa war a bari ay métier daa war a bari métier bu la leeree nañ ci ne ne sa yëfi bopp mun keneen mën la ko lijjantal ndax fëgg na ku ne toog na ku ne toogaat na kii jógee fi kii toogaat kii toogaat te gisoo ci solution boo jàngee ba ne ara ba xam li nga war a xam nga jéem a fëggal sa bopp ay solution mooy ma ma ma loolu nag danaa ci interpeller borom alal yi borom alal yi borom mën a jàppale ñi nga xam ne loolu solution la maanaam borom alal yi pour ñu génne seen alal jàppale ñi nga xam ne ñoo yoroom njàng te amuñu liggéey loola moom bunt bu laa ci jaar ak bi nga ak yow ci sa bopp nga sabab liggéey boo am nga jàpp ca ngir mën a fëggal sa bopp ay ay bunt am na nga xam ne dañoo xamul dara moom jànguñu ah ñooñu moom lañ leen di sant mooy ñaare mën a mooy benn yow nga doon ndaw wala nga nga egg nga dem ba egg ci benn âge bi kooku nag moom wutal ko solution dana jafe ndax li tax muy jafe mooy lan yoratum njàng ba nga mën koo liggéeyloo kooku kay lu mu gis na ca jàpp rek lu gis na ca jàpp rek comme da loolu la la ci mën a xam li ci des nag mooy li sëñ bi wax ne moo tax ñu naan jàng ca ba ba nga ko waree def da ci baax bi ci des mooy lu am solo lu sëñ bee wax sëñ sëñ sëñ sëñ loo mooy ndaw ñi biñ jógee day mel ne daa am lu leen këf loo leen këf nag mu mu xalaat ne mbaadu dañ leen a waxut lañ leen war a wax moo tax ñu mel ni ñu war a mel loolu nga wax nag sëñ bi am na lu ci am maanaam fi mu ne nii li waroon nekkuma di digal génn kilifa waaye Serigne Touba nam doon yare ak jàngale loolu lañu war a dellu si waat loolu lañu war a dellu si waat jàngal ndaw yi te yar leen ndax Serigne Saliou mi ma nekkaloon daana wax ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom li Serigne Touba doon def ci def ci def def ci mag ñi kon tojaat tool yi tojaat àll yi woowaat njaboot gi tënk leen ci àll ba te jàngal leen te yar leen loolu solution la ci kar ndaw yi waaye bu loolu amul ndaw ñi kuñ gis ànd ak yow kon ñàkka yu maanaam ñi nga xam ne ñoo waroon a yare bàyyi seenub ànd dem ca leneen loola bokk na ci li indi jafe-jafe ndax ndaw ñoo xam dañ leen war a tënk yar leen takk ña leen war a yar ña ngi ca leneen loola it jafe-jafe ndax am na kilifa gu baax doon wax ne muy wax boo xam ne mën naa ko tënk sa wax ji ngir tëj jotaay bi ngir tëj kàddu googu kilifa gu li muy wax war naa tiidloo génn kilifa gépp kilifa war na ko tiidloo daa wax ne ci misaal rek assemblée bee képp koo koo xam ne dañ la faa nga nekk fa ñu lay jox salaire ñu lay jox loo xam ne dañ la koy weeru jot mu am lu lay jox jox la oto jox la li ngay soxla ci ndox ma ngi cay def dalay leer nañu ci ne joxuñu la ko ngir nga tëddi nelaw bal dañ la ko jox ngir am waxtu wuñ lay xaar boo xam ne bu ñu soxlaa nga leeral loola loola ci adduna la ndegam adduna bu bu doon noonu la demee yàlla mi la may doole jox la daraja jox la pouvoir boo xam ne foo ñëwee nit ñi toog ci suuf loo dig la ñu def dara ju it yàlla joxulu ko ngir nga tëddi nelaw bal dana ko jox ngir di la xaar ëllëg fala nas lan nal alanna alladina ursila ilayhim wala nas alanna al mursalin yàlla nee na ñi ma yebaloon dinaa leen laaj waaye ñi ma yabaloon ci ñoom it danaa leen laaj kon jot na sëkk kilifa yi dellu suwaat njàngalem sëñ Tuubaa ci ñetti ñetti ñetti ñetti ñetti keno ya jàngal nit ñi ba ne ar yar leen ba ñu ne nër yee leen bañu ne jar te loola ma nga amee sëñ Salim boo gisee loolu danaa ko wax ngir jeexal sëñ Salim boo gisee muy fab àll muy fab gone yi di leen yóbbu ci àll ya daa wax ne nit ki mënoo yare mënoo yar njaboot gi ci barab boo wax environnement bi ci bopp ndax yar daa laaj milieu milieu bu baax environnement bi leen wër lépp dafay am contradiction ak li nga bëgg ci ñoom loolu du sotti da ngay dem ba ci milieu boo xam bu set la dara nekku fa loola kilifa yépp lay ñu defaat loolu sàkku njaboot gi yóbbu leen ci àll ba te jàngal leen te yar leen bunt yi de day ubbi ko ci saas waaye feeg li feeg loolu amut dañuy felet ci kawaay kii bi day jébbiwaat yal na yàlla def ñu topp jërëjëf. incha allah macha waaw waaw li suñu plan wax de xam naa da koo da koo da koo wodd rek waaye léeg-léeg la waajoroon wax naa naa ko waxta dee eh, gis nga responsabilité. su nit demee ba ñemeetu koo gàdd mu na ko wàcce boppam te am na ñoo xam ne yéenuñu seen bopp yàllaa leen yéen te gis nga jaam yi jaami yàlla lañ gis nga kiy jël diggante sëriñ ak taalibe bu ñuy joxe la gën a riche ci ñun la gën a fort lañ jox sunuy sëriñ du alal du ay compte banque ay compte du ay passeport diplomate xam nga lu mu doon ruu ruu gi nga xam ni su borom da koo fonk ba ba yonent ba ba mu dikkee yahudi di ko laaj sax yasaluunaka ani ruux quli ruuxu min amri rabbi su loolu sa yónnewu ci loolu lañ jël sunuy ruu la ñuy jébbal suñuy sëriñ gis nga nag ki jël li gën a foor di ko jébbale nañ la ca taxaw ba defar sa tey defar sa ëllëg li gën a ëpp solo ci nit su ko sàgganee perte na day mel ni nag affaire bi ab jeu la maanaam naxante sëriñ bu la mën a lijjant ci àdduna ak taaliba bu mën a lijjanti say mbir lii rek a fi am waaye la sëñ tubaa nekkoon moom waxuñu amut de mais néew ñu ñu ca nekk sëñ tubaa dañoo jariñ ba pare wëlbati ku nekk victime moom dañoo jariñ ba pare wëlbati ku nekk victime su ko boppam dong taxoon a jóg du yegg si fii ndax kiñ ne ñetti weer la te am daraje xutbu mu ne ko loolu taxum woon a jóg nga xam ni ma ngi doon yóotu lu ëpp loola te ëpp loola ngir jariñ nit ñi la Sëñ Tuubaa ñun ñëpp la dimbali waaye delloo njukkal gi du fa ñu waxee rek nga daanu wala fa ñu waxee rek nga nga nangam déedéet mooy delloo Sëñ Tuubaa njukkal ci jaami yàlla yi mission ba mu yoroon mooy risaala bi yonent bi sallam ñu taxawu ko ci fexe dimbali nit ñi ñu xam seen diine ñoŋal seen àdduna boobu ëllëgee ñu mën a am àjjana lii rek mooy wax ji suñ ko defee def li ñu war suñ ko defut nag defuñu li ñu war bu boobaa nag ñëppay am responsabilité bu boobaa maanaam na ñëpp xam ni la ma doon wax ne bu ñëpp maase woon noppi ñëpp maase am bàkkaar lii rek la léeg-léeg nag nañ xam ni euh, fii àdduna bi toll ku nekk war ngaa jub ci sa bopp ba soo demee bala sëñtu baa waxoon amatut in lam tulaaqi muslihan faltaktafi bi ma bihi nastaxiyaru salafi soo demee ba gisatoo ko la teg ci yoon gisatoo ku la defar xam nga loolu su ko Sëñ Tuubaa bindee mooy wane ne kon dangeen dem ba jamono doo gisati ko ne laan defal wala bàyyil soo ko gisee ne soo demee ba gisatoo loola nee na jéem a la xam la gaa yi baaxee nekkoon ta nga teg ci sa tànk. li ma jeexale ko ne nit nit mas na toog ci peggam daal di tesli xam nga tesli ku tesli dana alhamdulilah ñu war la wax yarhamkallah mu toog ci kawam tesli ba noppi ne ko waxul dara. mu ne ko dangay wax alhamdulilah mu ne ko dañ ma koy jàngul mu ne ko àndal ci fere yi mu ne ko diw mu ne ko boo demee nga bàyyi ko tuuti keneen ndax koo nekkal te la gën a tuuti ci lislaam mën la ko jàngal bay ba nga bàyyi ko tuuti keneen loolu la suñu tubaa doon yaree <laughs> jërëjëf jërëjëf waa xam naa waxtu dañoo tënk ndax dañuy ci ginnaaw waxtu tàkkusaan wi dafa jot daanaka te cérémonie daf ñu tënk kon na ngeen may may rek ma tënk waxtaan wi ci kàllaamay tubaab su ma noppee ma jox sëñ Assane ci turu comité scientifique bi barke borom Touba eh, ñoo ngi agsi ci war tëj ñaareelu paneel bi nga xam ne moom dañu ànd teewlu ko diggante 3 heures muy 15 heures ba 16 heures te mu waroon yem 16 heures waaye débat yi àgg foo xam ne ci am solo toftal nañ ci ay minit ndax mu jar ko kon nag eh, tëj mënta ñàkk ndax cérémonie officielle bi mi ngi waaj tàmbali Eh, ci biir tëj boobu nag ay kàddu cant lay doon cant yi nag ci jataay murit ak nii mu demee eh, mi ngi tàmbalee ci sëñ Muntaxa Mbakke yal na fi yàgg te wér ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant soxna Soda Xumma mi nga xam ne moom la sëñ Muntaxa xalif général de Mourides teg ci kanamu kuréelu fàttaliku yoonu géej gi nga xam ne tey jii mooy vingt-neuvième session vingt-neuvième édition ñi di ko màggal mu taxaw ci taxawaay bu mat sëkk ànd ko ak sëriñ Youssou Diop jéwrinu daara Hizbut Tarqiyyah nga xam ne bi ko sëñ bi boolee ak soxna si nëgë ni daaw ba ren yokkute yu mag a mag gis nañ ko ci julli géej gi mu doon mbégum taalibe yëpp dëppook ndigalu sëñ bi ñu di ko ci sant bu baax ndax fii ñuy defee panel bi tey muy grande exposition yi nekk na gulet ren grande exposition yi ñu jëlee ko tubaa nga xam ne bi maggal kese la ñuy organiser exposition yu mel nii mu doon exposition de dimension internationale ñu jóge màggal ñëw samp ko fii ci julli géej gi mu doon yokkute bu mat sëkk ginnaaw sant yooyu di sant nag mboolem ñi nga xam ne bii teewe nañ ko tàmbali nag dëgg-dëgg ci euh, sunu panelis yi sëñ Abdoulaat Ñang ñi ngi koy sant bu baax a baax ndax thème bi niñ ko waajaloon ci sujet wax dëgg yàlla indi na ko lu kawee njort ci niñ ko séntu woon dinañ gis sax ay thèmes yoo xam ne léeg-léeg euh, day mujj daanaka génn sujet bi dugg ci biir waxtaanu murit rek lépp am na njëriñ waaye bii dañoo gis ne daf ko yemale ci biir sujet bi te indi ci nag diagnostic boo xam ne bii mën nañ koy bind mu doon ay téere fu ne ñu di ko jàng di ko jàngale fu ne ci àdduna bi waaye yemul ci diagnostic bi bi mu laalee diagnostic yi génne yi nga xam ne bii ci ay ponk yu leer ay yàqu-yàqu lay indi ci société bi dafa daal di wëlbatiku nag dellu ci liggéey ci mbindum sëñ tubaa niñ ko séntu woon indil ñu nag li ñuy wax solution sëñ tubaa lan lañu jàngal ngir ñu mën a génn ci jafe-jafe yooyu mu doon lu am solo loo xam ne bi ku ko sotti woon téere dina doon njëriñ ci ñëpp di sant bu baax a baax sëñ Mbacke Fadal ci moom it ni mu ñëwee waat ci thème bi fecc li ko indi ci ay jàngale yoo xam ne bi lépp rek ñi fi teewe yëpp xam nañ ne yokkute la dolli ko kon nag am na nu ko euh, kenn ci intervenant yi waxee ne dafa doon yu ñu waroon a appliquer bis bu ne waaw ci biir sant yooyu nag ñu xanaa sant mboolem ñi fi teew niñ ko waxee ndax gis nañ ne kenn jógul an lépp ànd na ci teggin ak yar yi nga xam ne bi moom la ñu séentu ci yoonu murit ñu di ci sant ñëpp di sant comité scientifique bi seen liggéey wax dëgg yàlla ci lii nii rafet na di sant nag suñu modérateur hors pair sëñ Moussa Diouf nga xam ne néga ni démb ñu ngi ko mobiliser muy modé euh, modéré panel bu njëkk bi di panel 1 dellusiwaat fii nii di ko di ko modéré di sant ñëpp sëñ Badio di sant euh, sëñ Jaraaf ñëpp rek su ma limee jum sëñ Cheikh nga xam ne bii lii lépp moom moo ko coordonné piloté ko kon loolu waaw kon euh, ñu tëj ci benn minute ci français on voudrait à au point de clôturer euh, la le panel numéro de sur les deux panels que le comité scientifique a eu l'insigne honneur d'organiser à l'occasion de cette 29e euh, édition di kuréel fàttaliku julli géej gi ce deuxième panel ki a été euh, modéré par Serigne Mbacké Abdou euh, Serigne Mbacké Fadal mais animé de si belle manière par Serigne Abdou Lahad Niang. Nous remercions tout le monde, c'est l'appel à la prière, on ne prolongé, mais nous remercions d'abord nos remerciements à Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides, nos remerciements à Sokhna Soda Khouma, responsable du kuréel, à Serigne Youssou Diop et à l'ensemble des participants, à l'ensemble du comité scientifique. Merci, déwénati.